HLM yëpp ñu ngi nuyu ñëpp ñu ñuy seetaan euh, tey dañ fi daje woon euh, pour def euh, benn set setal ci terrain bi woote waale la population bi en général woo parents d'élèves yi sympathisants yi les anciens de l'école de football Modou Mbaye école de football Modou Mbaye nag mi ngi sur ci terrain bi mi ngi existé depuis 2003 donc bientôt sax dañuy fêter suñu 18e anniversaire donc dañ fi pour def communication si euh, euh, refus maire par rapport à suñu projet Nous avons un projet euh, avec des partenaires pour installer un gazon synthétique fils ci espace bi c'est un petit terrain c'est-à-dire que pour nous, pour nous, pour ñu nous, euh, terrain bu mag bi terrain HLM la moy moy suñu terrain bi ñuy entraîner donc dafa dafa am terrain bu mag ak terrain bu ndaw donc dans le plan d'origine il terrain la war nek ñun on ne demande rien d'autre que une autorisation pour nous mener sur installer suñu projet avec nos partenaires il se trouve que que maire bi a opposer un refus catégorique voilà donc si communication bi mu def demb sax il dit que après daf ñuy ñew fekk fi génnee ñu fi loolu nak wax boobu nag moom bu euh nañ ko xolaat bu baaxa baax parce que li li ñu bëgg ñu japp commune bi mairie bi les autorités municipales moy que ñun si commune bi lañu dëkk ñun fi fi lañu dëkk dëkku ñu fenen waaw ñew fekk ñu suñu terrain génne ñu nag loolu mom loolu mom affaire bu doy war lay nek voilà communication bi nak dañ pour alerter l'opinion l'opinion HLMoise l'opinion même nationale et même internationale pour nous xam porter affaire bini parce que nous quand même administré lañu ñun structure sportive lañu légalement reconnue am nañu récépissé et tout donc avons un projet li ñuy xaar ci municipalité nous mu ñeu japp ci projet bi Waru xaar maire voilà la municipalité muy opposé wu à un projet pour xamné mom lañu am waaw donc lolu communication bi pour tout ko monde. donc école de football bi warul mëna a am un projet de cette envergure là la municipalité bi du ko accompagner ñun encore une fois lu compliqué on demande un partenariat avec la mairie dugal nañu une demande officielle accusé de réception au niveau de la mairie avec ampliation au sous-préfet pour que nous puissions démarrer suñu travaux parce que gazon est sur place tous les moyens de production sont sur place instant bi est bloqué cette arrêté municipale dans les brefs démarrer travaux pour que terrain bi voir le jour HLM au bénéfice de toute la population HLMoise waaw donc jot nañu waxtaan ak maire bi jot nañu on a eu deux rencontres échanges euh, mais en réalité argumentaire yi maire bi di joxé pour bañ projet bi argumentaire yi euh, avec tout le respect que euh, qu'on doit c'est cet argumentaire bo xamné ne ça ne tient pas la route donc li ñuy wax moy terrain bi terrain HLM la ñun si population HLM Mass bi lañu bok maire bi demb pour ne pas revenir si communication bi mu def dafa wax ni son seul interlocuteur c'est est l'ASC HLM man japp na ni lolu amul lu gëna graw ci wax parce que nak HLM HLM yaatu na de HLM ben ASC rek nekku fi ñun bu mënul am reconnaissance au niveau de cette commune là parce que ñi ngi liggéey ci commune bi depuis dix huit ans tay ji après dina am kenn kuy wax am nañu ay élèves yo xamné ni jaar nañ fi ba génn ba dom ba seen doom di fi ñëwaat waaw école de football bi nag pour gàttal Bamba moomu ko euh, Bamba personne morale kese la école de football bi population bi ñoo ko moom parce que ñoom ñoo fi andi seen doom ñu leen fi yar voilà donc euh, pour bañ a guddal trop ma ma bàyyi peut-être euh, ñeneen ñi wala peut-être su dee am ngeen yeneen question yi ñu ngeen di poser yu lérul par rapport ak qui. mais en tout cas dal pour résumer refus refus refus mairie bi amul dara luñ ko motiver amuko ko amul dara luñ ko motiver parce que li ñuy wax ni que ni Socabek jox nañ ko autorisation pour que mu defar stade bi ok ñun bañu ñu defar stade nañu defar stade mais stade baa ngi le ñun on est là on attend depuis 15 ans stade baa ngi ne nañ ko defar ñom am nañ lu ñuy am nañ ñun nag suñu projet dafa waroowul ak projet Socabek Socabek na defar li mu war a defar ñun ñu defar li ñu war a defar am na loo xam ne nag problème mu euh, population sportive HLMoise la population sportive HLMoise nañu nañ ko ñëw régler mais en tout cas ñun l'école de football li nga xam ne moo ñu concerné muy wàllum terrain bi dinañ ci dem lu ñu mën on exclut rien nag ma waxaat ko du du ay menace du ay dara ñun dañu dëkk ci cité bi am amfi, am am fi droit bi fi am bi fi am Li communication première la rek bu ñu si dina am yenen amna benn plan d'action bu ñuy waja tek pour impliquer toute la population HLMoise ñu beaucoup si projet bi Xamni ni que projet bi projet HLM la Tay jii bu ñu jógee si lii am na yeneen yu ñuy prévoir dinañ def ay on dinañ def ay marche dinañ def ay correspondance dinañ def pétition pétition bi d'ailleurs mi ngi fi dama ko faté indi dinañ ko lancer walé waaw pour que autorité bi revienne à la raison xam que ni ñun dañoo bokk ci cité bi te dañ fi am yoon am fi baat. di wax ne rek beneen cadre bu ñu taxawee muy le dans le cadre communal euh, la commune defe naa son rôle c'est d'accompagner la population tey jii bu amee tey koo xam ne mu ngi bokk ci population am initier ben projet bo xamné ne euh, projet da koy jàppale ci projet boobu par rapport euh politique sportive je crois que le maire bi daf ko ci wara jappalé jàppale. te defe naa dinañ def lépp li nga xamante suñu pouvoir waxtan ci les autorités municipales pour ñu approprier wu projet bi parce que projet bi comme ni ko Bamba waxé c'est pas c'est pas la personne de Bamba ou de l'école de football mais c'est la structure même qui demande demander partenariat public privé pour tabac ben terrain dans le dans comme nous l'avons ko dans le projet initial faut faut terrain de football la war a donc c'est pas c'est pas compliqué nous avons ni am ben document pour business plan bi établir ne li nga exploitation bi non parce que nous bëri dañuy wax dañuy wax ne mënoo mënoo mënoo jox kenn bàyyi ñeneen defe naa ne boo nekkee di di di di administrer mbooloo mënoo jox ñëpp projet bu ñëw comme ni ñu ko joxee Socabeg mu am benn wàll beneen wàll bi nga xam ne deful ko bu ñu gisee keneen ku ko war a defal dañ ci war a taxaw bu baax ba mu defar ko defe naa loolu moo doon taxawaay bi fii tey di di leen encourager waat bu baax a baax di wax ne ñu ngi seen ginnaaw

sur le plan sécuritaire ñu nga xam HLM mu nekk au moins ca dina am cadre de vie nous xam ne ñëpp dinañ ci mën a dund. léegi nag dañoo nekk si dëkku loi am na ay autorité yo xamné ñom ñoo res sécurité des personnes ñooñu lañuy def ay correspondance wax leen démarche yi nga xamné mom lañ ci nara def inshallah bon je suis le représentant des parents d'élèves man euh, à la commune fi la nekk durant presque 30 ans plus de 30 ans, oui. Bon, peut-être j'ai deux casquettes, parents d'élèves, en même temps représentant euh, de l'État, chez agent administration aussi. Bon, maintenant, problème du que beaucoup de nous C'est sûr et certain que son excellence, président Macky Sall, euh, il tient beaucoup aussi euh, ce développement jeunesse tolloon nañu ben moment bo xamné ne lu fi jotoon xew ñëpp xamnañ ko pandémie ñu jall na fi dëkk bi amna problème et tout légui maintenant yalla dimbali na ma nu suux di jëm a ci pandémie malgré que jeexagul mais nu ngi jëm relancer aussi tamit euh, un gars comme Bamba mom il est là depuis comme nous ko waxé rek ça fait très longtemps que mon nek fi nek xale yi am na si ñoo dem nañu ba mag ñi nu ngi ci peut-être yenen fonction sen dom nek fi aussi tamit euh, di yëngu parce que sport ñep xam nañ ne sport aussi tamit day défar euh, day défar mag rawatina ak aussi tamit xale ñun on est fier vraiment que Bamba depuis man bama ko joxe samay dom lépp bon nek xale ba légui man j'ai confiance à lui du ma ko téléphone sax parce que wóolu ko te nu ma ko wóolee parent parents d'élèves yëpp noonu lañ ko wóoloo Il y a un blocage quelque part mooy que mal euh, bon am na si côté yoo xamante mal inco comprendre ay ne comprendre pas, monsieur le maire peut-être comprendre le projet Bamba Bamba explique, il a les documents ampliation aussi tamit sous-préfet de Grand Dakar jox ko ampliation et tout blocage bidal, je trouve que peut-être n'y euh, comprendre que de comprendre mais lui c'est un job noble c'est à encourager euh, aussi côté parce que lui-même, le ministre des sports l'a interpellé direct il n'est pas informé de ça mais beaucoup ko ont réglé régler situation parce que Bambe le développement bu muy def commune bi commune bi na vraiment aussi dañu dañu dans le bon sens sport aussi libérer esprit bon c'est à encourager hein. vraiment li muy def trop trop trop trop trop trop bon son excellence président Macky Sall mom aussi tam nu ngi ñaan mu jëm no jeunesse bi particulièrement monsieur le monsieur le ministre des sports aussi mu xol situation bi nu réglée. régler man xamna aussi tamit Pape sec je le connais très bien amul problème peut-être aussi tamit euh, situation moo tëddee ni mais lepp doon ko waxtané nañ ko waxtaanee parce que bamb lii mu jàpp nii aussi tamit affaire bi xamné xam c'est à encourager dañ ko jàppale vraiment que lii mu sumb vraiment nous jàppale ko si mu mun dem man je suis parent d'élève xamna naa lu may wax ci commune bi dëkk na fi yàgg et tout mais vraiment nañ ko nañ len jàppale quoi oui nañ len jàppale merci bien. ma ngi nuyu ñëpp di ku si nekk ci turam ak sax tant qu'ancien de l'école de aussi en tant que prendre la parole au nom de ces enfants de ces jeunes qui ont un avenir devant eux sur le plan sportif et aussi sur le plan éducatif je me en tant qu'ancien donc moi c'est l'école de football de la école de football sur le plan sportif sur le plan éducatif de nañu

c'est quelqu'un qui veut faire un projet de société D'abord, nous avons la pour sur le plan sportif mais aussi sur le plan de la de la réussite personnelle parce que Taïdi, nous ñun une chance de nous am projet bu terrain synthétique gazonné pour nous entraîner sur de très bonnes conditions pour réussir sur le plan footballistique sur le plan sportif mais aussi sur le plan personnel politique signé à ay donc c'est un projet à saluer c'est un projet que je dirais même que le maire devait être ici présent parce que le projet yo xam yoo xamante ni la ku koy mëne uti si xaalis tout si dara daf pour yi mais aussi euh, am ben impact sur sen réussite donc euh, j'appelle à à monsieur Pape monsieur le maire de la commune de des mu jàppale projet yu mel nii vraiment ñëw def si mën-mënam def si ñàkkam def si kattanam ba antu nuy naa ñu fi teew yëpp donc lii moom jar na xoolaat bu baax a baax ndax pays dans un pays dañoo soxla ku mel ni Bamba dañoo soxla ku mel ni ñuy encourager ZAR projet yi parce que maintenant boo xoolee lu muy def ni du moom ko def tey mairie moo ko def wala donc bu ñu amee comme moom kuy def lii ku ko jàppalewul waru koo wàññil lu muy def da koo war a encourager yàgg nañu ak moom fii di liggéey ci même plan de sport mais boo xoolee ku am ni moom dans un pays laa la c'est une fleur donc kii man li may ñaan maire bi solution di ko jàppale du pour moom xam nga nit buy def lu baax da ngay ne tey maa ngi def lu baax suba nga xëy nga nelaw fële ñu yóbbu la mais soo defee lu baax ñu fiy des ñooy njariñoo donc kuy def lu baax ku ne lu mel ni lu muy def soo ko wàññiwul soo ko yokkuwul bul ko wàññil donc man li may ñaan jeunesse lu ñuy yar fii fii dafa bari woon ay jeunes yoo xam ne dañuy traîner amul ku leen di jàppale tey moom mu ngi jàppale jeunes yu bari di leen dundal moo tax ñun sax coach si ñu am si moom rawukaay pour mel ni moom di defar ay xale donc loolu bu amee tey mu taxawal projet bi ñun dañoo ñaan kenn ku ne ku nekk sénégalais wala africain di ko jàppale